ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production ngeen a boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew ci À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, 33 864 75 15. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu man la nabiya baaduhu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi baaxoo ànd ak Tawfekh Production ñu ngi fii ci Touba di waajal bis bu mag bi muy bisub 18 safar di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy bis bi nga xam ne ci la sëñ Touba Xaadimu Rasuul xëye woon Mbàkke Baari Euh, dem ci géej gi di bis boo xam ne nag ah sëriñ bi nee na ah, lépp lu mu am boromam ci bis boobu la ko defalee muy bis boo xam ne daa képp koo xam ne ah sama mbég sa mbég la fu la bis bi fekkate ci kaw suuf nang ma ci santale sama borom ndax sama cantuk bopp mënu koo matale ne li dalee ci ganaar ba ci gileem lu ci waaye man nang ma ko ci defal muy bis boo xam ne it njabootu Serigne Touba gi ñëpp yàgg nañ ko woote tàmbalee ci sëñ Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Modou Moustapha dëgg la euh, sëñ euh, sëñ sëñ Modou Moustapha daana ko def waaye nag boobu dafa fekk ne Serigne bi bi bi mu santaane màggal gi du caagi ni ñëpp dañ daan ñëw Touba di ko def kenn ku ne fa nga nekkoon rek mën nga faa màggalee. waaye ci euh, jamonoy Cheikh Mouhamadul Fadal la gis ne dajale ni ñi fii ci tuubaa ñu ñëw daje loolu retrouvaille lay nekk boo xam ne li ci mën a juddoo lépp ñun ñii euh, seere nañ ne loolu lu lu lu amam solo la ndax ku ne xam na ne màggal gi bëri na euh, ay ay ay ay ay ay noqta yuñ ci mën a jël yoo xam ne ci lépp ci wàllu économie ci wàllu gune rek boo fa demee da ngay fekk màggal gi taxaw taxawaay boo xam ne ku ne xam na ne mënutoon na ñàkk ci réew mi. waaye nag euh, ñuy soññ mbokk yi nga xam ne dañuy ñëw di wuy Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa bis bi day bis bu mu fonk bis bi du bisub caaxaan jigéen ñi góor ñi ak ñi ma ko sañ wax ñëpp nañu defaraat seen bopp Cheikh mun taxa dégg ngeen ndigal yi ak tere yi nga xam ne tere ne ko ci dëkk bi Touba day dëkk boo xam ne dëkk buy faj ajo la wax fir li man euh, biha xat sakkana walilladi laha li xayri rakina li man biha xat sakkana mooy ñi nga xam ne dañoo dëkk xam ne fi la seen i puju néeg nekk waaye waaye wali lazi laha li xayri rakina mooy koo xam ne da ngaa jóg wut si Touba te bi ngay ñëw aw yiw nga indaale nga xam ne yu mel ne da ngay ñëw di ziyaare si indaale aw yiw waaye nag kon nañu moytundiku wa maskani sallim minal fujaari wamnun ala al ahli bi ma injaari sallim minal fujaari moom képp kuy ñëw tuubaa indaale ak kàccoor na la woor ne sa kàccoor googu sëriñ bi liggéeyal na boromam lu tax kàccoor googu dana am lu ko détecté fi ne policiers xam ne ñoo fi nekk ak gendarmerie di détecté nit ñi dëgg la dañuy feeñ nii rek mënta ñàkk waaye sëriñ bi yor na yu gën a efficace yooyu na ko nit ñi bàyyi xel lépp lu waaye di indi tuubaa te mu wóor na la dëppoowut ak njàngaleem sëriñ Touba dëppoowut ak lislaam suturaalal sa bopp bàyyi ko sab dëkk boo màggalee ba noppi xëñ na yàlla dana la may tawféex joo xam ne boo delloo sax dootoo ko soxla tuubaa dëkkub xéewal la tuubaa dëkkub yiw la suñ Touba tukkeen bii ba muy tukki dafa wax ne man zanna anni li gayrillahi murtaxilun aw li siwa almustafa almuxtaari fi safari salla alayhi bi taslimin bi chiatihi man kawnuhu li agnaani an nafari wax ba àgg ci xataa yubarisani bi sayfi daa safahin wa bilmadaafici daa xiqdin wa daa gadari fallahu yaxduluhu walxalqu taadiluhu walcaaru yaqtuluhu bilxizi walkadari wallahu yansuruni walxalqu tatbauni fi lbarri walbaxri daa nafan bila darari ne koo xam ne dangaa njortu ne tukki bii may tukki maa ngi koy tukkil maa ngi koy tukkil ku dul yonente bi alayhi salaatu salaam wala tukki bii may tukki dama ko tukki lu wuute ak suñu borom xamal ne yaa ngi nax sa bopp xamal ne yaa ngi nax sa bopp. loolu moom ab soññi la boo xam ne dañ ci soññ ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ngeen di abonné fii a jot mboolem vidéo ngir mën a xam li nga xam ne mooy xew ci